masawa is jaa yamtaaru min dafa yàkkamti information maako ko njëkk a wax maa ko njëkk a xam jaral na leen fomante lu ne wallahi jaral na leen fomante lu ne sëriñ Cheikh nag moo ñu doon nettali mu ne dafa am benn waay bu ñëw ci moom ne ko fekk ñu toog ci saal bi nee na mu ne ko Cheikh Tidiane yëg nga ne medun xulle génn na àddina medun xulle mbërum làmb la woon bu siiwoon nag comme ni Tyson ak Balla Gaye ak ñooñu mel mu ne ko génn na àddina sëñ Cheikh ne ko ah loolu doy na waar di kañ la génn àddina mu ne ko bër barki démb biñ koy robbi man téye naa sax ci jaat ji Serigne Cheikh nee na ñu toog matul 15 minutes Médoune Khoule nuyoo mu ne ñëpp di xoolante mu ne waa ji dal di binni noyyi maa bàyyi àddina Serigne Cheikh ne ko bawoo àddina àddinaa la ba mu ne ko boo noonu Médoune Khoule génn na àddina rek mën nañ ko gëm sax ne xëy na rumeur boo dégg la. mu ne ko waaye danga nga fàtte ne da nga ne yaa jàpp ci jaat ji kooku preuve la mu ne ko bàyyi leen fen nii rek ngeen mel Serigne Cheikh lu ne la daan wax ndeysaan sama benn xarit gaañu na du ma tudd turam Mansour mii xam na ko Mansour Gueye bii xam na ko portable yi ku ko moytuwul ci fen ngay dëkk benn xaritam moo ko woo fekk da ko joxoon chantier sanc ba ndar la ne say muy xaw a yéex tuuti nag mu ngi ko doon liggéey sax wax dëgg yàlla mais diggante ndar ak Dakar jaabante bi mu sonn nag jour boobu mooy entrepreneur bi demul comme demul nag mu ne ko waaw diw sama chantier bi fu mu toll parce que dafa yéex yow tam dëgg-dëgg moo li waxante woon foo nekk nii sax nga baal ma jël mu ne ko foo nekk nii mu ne ko maa ngi ndar maa ngi nii ci chantier bi maa ngi ndar mu ne ko saawaay yow tam da fàtte ne ci sa fixe bi laa la woo <laughs> barki rasulullaay te moom moo ma ko nettali de ku baax la nag mu ne ko saawaay da nga fàtte ne woowu la ci sa portable ci sa fix bi laa la woo nga ne ma yaa ngi ndar noo mën a nekkee ndar di wuy ci fixe bi mu ne ko waaye dimbale ma man a fen rek mu ne ko waaye ba baal ma mën a fen rek damaa sonn deew ma benn ndar maa ngi nii sama néeg jaaxaan mu ne ko mais nga wax ma ko mu ne ko gis nga ni la yàlla weere maa ngi la woo nga ne ma yaa ngi ndar fekk ci sa fixe bi laa la woo moom fàtte na ci fixe bi lay wuyu ndax tàmm portable gis nga portable yii ku ko moytuwul ci fen lii def te moo gën a yées na dañ lay woo nga naan non non maa ngi nii accident bi pare fekk yaa nga sàndaga mais waxal fi nga ne waxal li ngay def moo tax lax laxdari am solo mu ne wal kibru ak rëy tuddul sax rëy moon njaay rëy rëylu la waaye rëy amul rëy rëylu al kibru mooy rëy rëylu waaye rëy amul xam nga ku rëy yàlla rekk rëy xam naa ci kibru boobu lay taxaw walla boog oj bu wala riyaa nañ dem ba ci riyaaw ñu taxaw mu mu jeexal phrase xam nga luy kibru rëy rëylu waaye rëy moom Modou Ndiaye yàlla rek a ko def moo tax mu ne fa lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbi ardi rabbil alamina wa lahul kibriyaau fi samawati wal ard wa huwa al azizu al hakim démb nekk li laa ko ci xadara bi xam nga lu tax nit rëyul lii yi may wax koo xam ne boo yeewoo sël koo xool mu du mooy war ngaa rëy foofu rek laay njëkkee moon njaay koo xam ne boo xëyee yeewu ci sa kaw lal sël mu woo koo xool mu du mooyu kooko rëy war na aywa Modou Ndiaye ñu dem koo xam ne boo amee semaine yàlla sangu woo laaloo parfum brosse woo socc nañ wax amal semaine yàlla sangu woo sëlmu woo boros woo laaloo parfum koo jub nu muy def saa waay ma ñëw dañ ma yónni fii demul fenn xet gee koy bëgg a rey kooku rëy war na ko semaine rek semaine nga bàyyi sa bopp toppatoo woo sa bopp rek koo jub mu daw kooku rëy war na ko ah waaw koo xam ne nag boo feebaree léegi rek ne làcc ñu jagat jagatee yóbbu hôpital rëy war na la buñ lay sang di la summi di ràgg di samp ay perfusion di la opéré maara di itaali kooku rëy war na ko te ku ñuy opéré xam nañ moos ne dañ lay summi ba nga set dara du la topp kooku rëy war na ko koo xam ne bu ñu lay xool luy ruy ruy muy del siwaat rëy war na ko ma ñëw nag ci bi gën a garaaw ñu baal ma waaye ci jogoon wax naa ko démb jogoon si la ñu bari xam nañ ko man moo ma daan defaral ay dàll mu ngi woon fii Medina Imam Moussa Gueye bi moo ñëw toog ci jogan si kooku génn na àddina du ma ne yàlla na ko yàlla yërëm ndax wax ba mu waxoon jullit la nag waaye wóoruma ndax wax bi mu wax ci làmb ji la doon yëngu génn na àddina bu yàggul xam naa ko bu baax nag mu ñëw fekk imam Moussa mu ngi toog ci jogon mu ne imam Moussa ah waaw yéen nekk ci tele bi ak rajo bi rek di waaraate xàmmee naa la waaw est yàlla am na te ne jullit la turi jullit la yor imam Moussa bëgg a àddu jogoon ne ko eh Moïse bàyyil ma tontu ko kii woyu la man mi jàngut maa koy tontu te jogoon jàngul alif ba jàngul ab waaye moo dàq defar dàll ci kaw suuf jogoon boo ñëwaan ne ko jogoon an sa numéro téléphone dafa naa xoolal calendrier boobu lañ ca bind rek mooy sama numéro mënta liir sax 77 nangam nangam mënu ko pour te dire pour wan la ne jàngut waaye yàlla mbiram fu ko neex la koy def jogoon maa ko mujjee man mii di wax ak yow yàlla def jogoon ne ko booy Moïse bàyyil ma tontu ko Moïse rek la daan wax imam Moussa Moïse bàyyil ma tontu ko kii woyu la daal di ne ko yow yaay laaj fu yàlla ndax yàlla am na mu ne ko waaw mu ne ko maa lay wax piir ne yàlla am na mu ne ko fu yàlla nekk mu ne ko boo njambalee xoolal baat bi mu indi Modou Ndiaye xoolal baat bi jógoon indi daglu yéen xam ngeen xam ngeen njàmbale wala ma toj ko wala baax na Modou Ndiaye baax na ah Chérif nee na xamu ko njambale mooy kuy biiram di daw te mënu koo téye waaw kañ nga xam ne buy yéex yàq tubéyam waaw kañ boobooy njambale waaw moom mën na ko bañ a dégg ndax tu tukulóor la boobu xam nga luy njambale baatu wolof la mooy ku biiram di daw te mënatu koo téye te duus bi sori na waaw kañ koo koy njambale jogoon ne ko booy boo njambalee daw dugg ci duus bi tëj bëggoo ndey fekk la fa bëggoo bàyyi fekk la fa bëggoo jabar fekk la fa bëggoo doom fekk la fa bëggoo xarit fekk la fa kala fekk nal la ba nga set nga génn nga raxasu génn koo ko yàlla xam nga luñ ci teg saa yi ma ñëw teg jogoon ne ko Moussa lii gën a gaaw su ma fi soo fi nekkoon naan ko xaala laaw xaala wax ji du jeex waaye xam na li ma ko wax dëgg la te loolooy dëgg xoolal nelaw yeewu rek ni mu neexee ku la ko mënal xiif lekk wanaa su mu jàll mar naan wanaa su mu jàll ku la ko may bala nga koo xam nga ñàkk ko li Serigne Cheikh di wax nee na rek bu la dalee rek àddina tukki mu ne fi ngay nekk di onk rek way sama ndey lay laay lalla way sama ndey lay laay lalla léeg nga woo jigéen ji soxna si ne ko defaral ma foofu ruy bu woyof mu ne saalit nga di mu ne ruy woyof na àllum neen nga naan ruy bu woyof <laughs> mu ne ngi saalit te yëgoo ko ah, ne ruy ni mu woyofee nga naan defalal ma luy ruy bu woyof mu ne te ci limon mu ne yàlla moo changé caf ka gémmiñ rek ngay saalit mu ne xam nga ne kooku réyo moom mi rëy won na la ne moom rek a rëy moo tax alkibru rëy rëy lu moo fi ne mais rëy amul koo xam ne balaa ëllëg ñu jagat jagatee la dugal ci morgue bi te morgue bii rek kenn bëggu faa fanaan léegi billaay wal kitaab bi kuñ la noon kaay fanaan ci morgue bi nga ne kii daf maa yàq te léegi am na circonstance buy am rek ñu dugal ci morgue bi koo xam ne ci morgue bi ngay mujj buñ xëyee génnee la ci morgue bi teg la ci escalier jàkka ji doo dugg sax ci biir te yaa daan dugg ci biir ñépp taxaw ci gannaaw reculer jëñ la ca kanam ak a raglu xam nga lu muy firi yàlla sa waa jàngu ñun pare nañ ci yow yaa ko dese te pourtant bu njëkk ci sàppe si nga daan nekk bu dee ca jigéen yaa ngi ca biir jàkka ja bu dee imaam imaam rek mooy nekk ca kanam imaam mi la daan jiite ñëw taxaw ci sa ginnaaw kenn du jël responsabilité kenn jëlil sëriñ ba ca Touba wala nga yaakaar ka ca Tiwaawan wala ka ca ñaseen bu ñëwee taxaw war laa jullee it du wax waxu boppam du jël responsabilité te yàgg ngaa yóbbu àddiya Touba. yàgg ngaa yóbbu àddiya Tiwaawan bu dee ilimaan jii ci jàkka ji yàgg nga koo nuyook enveloppe waaye du jël responsabilité moo tax benn tukkulóor bu neex ma ciy waxtaan bés mu ne ma ay dara maa la gën sant ma ne ko man noo ma gënee sant man kañ damaa gën lante sax mu ne yow nga sant ay man ma sant ka ma ne ko noo ma gënee sant yàgg ngaa joxe àddiya kenn du ko tudd yàgg ngaa tabax lu jàkka ji kenn du ko tudd dañ naan allahumma ndax ilimaan day geesu wala kiy jullee ñaan gi nag ku ko mënul yemal rek ci wa salaatu wa salaamu ala rasulillahi allahuma yaxfir lahu warhamhu wala allahuma yaxfir laha warhamha yem ca mooy maa ngi julli ci yónnant bi di sëlmal ci moom yàlla kiy tëdd yërëm ko jéggal ko jeex ah bu dee nag ñaan nga lay jàng danaan allahu akbar allahumma innahu abduka la pël ba waxoon ñëw na innahu abduka wa bnu ammatika damir yépp kala yàlla kii tëdd sa jaam bu góor la jóge ci sa jaam bu jigéen in kaana muhsinan su fekkee ku daan rafetal la xam nga ko te pourtant yow mi koy wax xamoon nga ko de ndax yàgg na laa jox àddiya dëgg la wala du dëgg ilimaan jii ci jàkka ji xam na ko ndax yàgg naa def teraanga ci jàkka ji waaye danga naan su fekkee daan na def lu baax yow yàlla xam nga ko fay ko te yokkal ko ay jëfam yu rafet su fekkee daan na ñaawal ci amaat na sax mos ngaa xam ne kii mos naa ñaawal waaye doo ko tudd yàlla bu fekkee daf daan ñaawal xam nga ko muur ko ma yërmate ci jéggal ko ba ñaan nga di jeex nga ne yàlla kii nag soo ko jéggalee boole ñu ci léegi moom nga yaakaar bi kii soo ko jéggalee boole ñu ci ñun ñëpp waaye bu ci yem jéggalal ña muy fekki dal di ne asalaamualeykum waaw kon lu fi jar rëy rëylu amul ba ca topp mooy woy oj bu yéem sa jëf yéem sa jëf ngeen baal ma ma jël ci ñetti exemple yéem sa jëf benn bi dinaa ko jël ci jaamu yàlla benn bi ma jël ko ci wàllu àdduna benn bi ma jël ko ci wàllu askan xanaa mat na bi may jël ci wàllu àgg àdduna yàlla da lay mëne gan wolof moo ko firi mëne la gan kon mën ngaa xëy rek dootoo mën mëne gan benn yaay feye ko solde di joxe dépense ci kër gi wala yaa nekk bitim réew waxuma la nag di yónnee dund ci kër gi wala walla wala waaye loolu ngay def dana tax bant sax buñ koy yëgal ci kër gi danga naan naa ko yëg su ma ko yëgul téye sama loxo dëgg la wala du dëgg ah da ngeen di def te du ngeen ma yëgal dootul ñëw bu dee man rek dootul leen ngañam waay waay li may man Sénégal laa nekk dama xam li xam wala yow yaay xëy fii bureau di wàcc amoo woon liggéey dañ la fayal ba nga jàng am liggéey di fayeeku trois cent mille cinq cent mille yàlla nattu la yow yaay fay courant di fay ndox di joxe dépense waaye sante ko yàlla doo ko def lu yëngu ci kër gi nga dem ku ma fontoo ma dog courant bi laa wax yéen da ngeen mën a yàq courant te barki démb ci courant bi nga jàngee ba dem amal ngor fay ko rek te ne pat dépense bi ngay joxe ñuy lekk sa ndey ak sa baay xamoo fu ñu jëlee woon dépense bi nga toll nii ba xëy mën ko joxe amal ngor joxe ko te ne pat lu ñuy togg sax sa yoon newu ci waaye da ngay wàcc sax mais lu ngeen togg tey mbaxalu Saloum mais dis donc qu'est-ce que ça veut dire ça mbaxalu Saloum qu'est-ce que ça veut dire may joxe sama xaalis ngeen may toggal mbaxalu Saloum reewande reewande reewande ak bew ak yëg sa jëf baaxul yàlla ne waxtu woo yëgee li nga jëf rek suur naa ko moo tax yonent bi sa alayhi yàlla wax ko ci alxuraan ne ko waxal ma jaam yi ne leen qawlun ma'ruf wa maghfiratun mu ne waxal ma jaam yi ne leen sarax bu duun jëf ju rëy ju ànd ak yëg ne yaa ko jëf ak wax ko mu ne ñàkk koo jëf ke wax ne rekk sikki ma lakkandoo moo ma ko gën jox nit junni walla fayal ko courant mu romb la gisu la nuyoowul nga ne ah pourtant tey lay romb ma de waaye barki démb bi mu yaaxlee maa ko fayal courant bi nii lañ mel baa lañ yàlla ne ñàkk nga ko xëy na daf laa gisul même bu la gisoon nuyuwu la lu mu jotee courant bi nga ko fayal yàlla tax nga def walla moom moo tax nga def yéem sa jëf baaxul kenn du ko def boobu mooy wàllu social looy def rek ne yàlla tax bi ma ciy jeexale mooy même même boroom kër gu góor gi joxel dépense waaye bul wax lu ñuy togg dépense bi yaa ko war a joxe waaye bul wax lu togg li ñuy togg ndaw see ko war a décider ndax moo xam li waa kër gi gën a bëgg yow boo nee toggal leen ma maafe te am na ñu bëgg genn wàll kër gi yëpp bëgguñ maafe ceebu jën lañ bëgg boo ndaw si jigéen ji moo xam li nga xam ne bu ko toggee du des ak li nga xam ne bu ko toggee ñëpp uti mburu sàndis te wallahi togg nit ñi lekk ku xamoon yiw wi ci nekk rawati jigéen ñi koy def barki yàlla midi matin soir ci ngeen di dëkk togg rek nit ñi lekk billaahi wal kitaabi ko xamoon yool bi ci nekk doo jóg ci waañ wi ak joxe ñam yonent bi salaay salaam nee na am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu ko dindi ci ko suuf lu dul nga joxe dépense ñu togg waa kër gi lekk moom rekk a ko mën a dindi joxe dépense ñu togg waa kër gi lekk yooyu du ay caaxaan moo tax ñaq ci waañ kooku beneen affaire la ku ko yàlla fay yonent bi nee na jox nit benn tibb mu lekk moo gënal yàlla nga tabax junniy jàkk junniy jàkk xoola yiw woowu parce que balaa kenn di jaamu yàlla da ngay lekk ba noppi am na benn saxaaba bu baax bu mu nekkoon ci jàkka ji rek di jaamu yàlla ba ñépp ràññeeku ñu ñëw wax ko yonent bi ne ko diw ku mën a jaamu yàlla la moom daal mu ci jàkka ji rek ñu ne ko luy métier mu ne moom jàkka ji rek mooy métier yonent bi ne leen ku ko yore ñu ne ko diw mu ne moo ko ëpp tiyaabo ñu ne ko ah yaa rasulallaah lu tax mu ne ndax moo koy dundal ba mën a jaamu yàlla balaañ koo fay fay ka koy dundal ba noppi xanaa xamoo waa kër gi surga yi ci kër gi luñ jaamu yàlla balaañ koy bind ci seen compte bind ko ci compte ndey ak baay ba pare ñoo joxe dépense bi dépense dafa rëy ci yàlla yonent bi nee na boroom kër bu génnee depanse di ko jox jabaram yàlla danaan malaaka yi aw ko gaaw bu mu bu nangul leen ma ko ci sarax yi gën a nangu ci kaw suuf ak lum tuuti tuuti <laughs> dépense du caaxaan moo tax yàlla bi mu koy wax ci alxuraan bu tuuti baag bu rëy ba la yemale dafa ne wal yunfiq zu saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizqahu fal yunfiq mimma aataahu llah laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha sa yaj'alu llahu ba'da usrin yusra yàlla ne wal yunfiq nay dépensé di joxe dépense zu saatin borom alal min saati yi kemte laay alalam nam toll kenn limité wu ko dépense amul limite mu ne waaye nag wa man képp koo xam ne qudira dama gàttal alayhi ci moom risquhu wërsëgam bi amul lu bari mu ne bu mu ko teree joxe de léeg-léeg nga dégg ko daan jabaram man 500 rek laa yor jox ko ko te dox dem liggéey liggéeyi 500 rek laa yore ci laay paas liggéeyi waroo cee paas liggéeyi da nga ko ko war a jox mu dépensé ko nga dox loolu la la yàlla sant bu ñu kenn fontoo góor ñi dañ jabaate rek ñu baal dañ yabaate rek te ku ci leb dépense bor la ci sa loos da nga ko war a fay waaw mottali rek ba weer wi de bu weer wi de foofu lay léeb ja toxe càbbi géej yee mu ngi ci sa loos maa la ko wax de <laughs> ah xanaa nga négocier ak ndaw si ne ko baal ma rek li ma la ma sa wax yëpp mottalil may ma ko bu la nee may naa la ko rek wàcc na ko wàcc na la léegi waaye loo ko ci ne mottalil après te après bi defoo ko bor la ak góor ñi xamuñ xam nañ mais yàlla li mu wax ci joxe dépense ak yool bi ci nekk bu ko góor ñi xamoon dañ koy njëkkante mu ne nag képp koo xam ne maa xatal wërsëg ci moom ba amut bu mu ko teree joxe ñu ne yàlla kon looy joxe mu ne la nga am joxe li nga am te xamal ndaw si ne ko lii laa am bu ko nëbb 500 laa am mu ngi. dama fas yéene dox dem liggéey nag mu ne ah papa bébé yow itam loolu ëpp bàyyil ma lijjanti loolu xam nga ne duma ko seetaan yal na yàlla def jàmm demal rek waaye dinaa ko lijjanti ah waaw ah yow itam bébé teguma la ko di teguma la ko waaye papa noonu la baaxee gis nga yooyu yàlla da ciy mbég mbég boo xam ni échange boobu ngeen di échangeante ci dialogante ci dépense day neex yàlla parce que yàlla day xëy bëgg gis couple bu juboo daf koy neex day toog ci aras di jaayu gis couple bu juboo ma wax la li gën a li gën a gaaw yonent bi nee na couple bu juboo yonent bi nee na bu ñuy joxante loxo ñoom ñaar ñoon di akolaat yàlla day yebal malaaka yi ne leen gaaw leen balaa ñuy rocc seen loxo bàkkaar yu ñu amoon na jaar ci seen diggante baaraam yi di ruus comme xobu garab yu wow yuy ruus ci seen ndey waaye yow nga ñëw wàcc liggéey toog fële ndaw si toog fële guuxi lex nga guuxi lex su booxum ma ne ko su booxum boobu kuubul léegi nag am na lu gën a garaaw guuxi lex da ngay wàcc par da ngay liggéey toog fële kële wàcc liggéey toog fële ça va ça va bien te la buy bind bu la ko wonoon àddina tukki maa la ko léeg mu ne peintre nga xool la tafsir gay waxoon nee na waa ji day nag te mënul doxaan nee na ndaw si su gel bi sonal ko nee na mu woo ko nag jabar ji xam nga téléphone yi léeg-léeg day xumb noono kii bi écho bi day boobu daanaka ba bu nit di wax den ak yow daf koy dégg nee na ndaw si ne ko yow da nga doon boo wàccee di nga ma woo boobu ba léegi maa ngi lay woon na woo jël sa téléphone bi nga toog ba léegi di ma décroché mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu kañ la am mu ne ko yaa mën a nangam may wax ak yow ngay nga may jéem a kii mu ne ko subhanallah mbaa rabaguñ ko ndekete kat ndaw sa da koy saaga saaga mu xam ne dana feeñ mu ne coupé téléphone bi jabar ji ne ko nijaay yaa mën a fen lim lay wax yëpp dégg naa la ko yow boo ñëwee fii di guuxi lex xale bu tuuti di la woo di la saaga ñeme woowuñu xam nga torox na te dara xew torox na te dara xew te loolu moo bari ci kër yi wàcc rek guuxi lex xale yi di fatu ji seet yaay toog fële di misère nga toog nag yor sa portable fiix pour kay pour lan boo wàccee jël sa téléphone teg fële woo sa njaboot man bëgguma sax di wax yenn laa léegi dafa am bi may wax ak waa Louga yooyu sama ñaari doom dugg si maa eh les mos ñëw nañ waa ji ma koy waxal loolu ma ne ko sama ñaari doom laay waxal dama leen géej gis ñu ñaaw ñi laa leen tuddee nit da ngay ñemeloo sa njaboot sa bopp di kafak ñoom di leen miinal sa bopp waaye yow boo duggee ci kër ñëpp fatu ji ban sens la amati kenn ñemewu la aborder kenn ñemewu la wax soxla kenn ñemewu la wax yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njobootam te maa gën ci sama njoboot ah waaw dépense du caaxaan dépense du caaxaan góor ñi billaahi wal kitaabi ku ko ci mos doo ko bàyyi te mag ñi dañ daan wax ne booy joxe dépense moo moo du njaay bul njëkkee ci lu koowee njëkkeel ci lu suufe di yéeg parce que boo njëkkee ci lu kowe wàcc du gàtt nga gu baax te kan ko daan jox mën na foog ne danga nga koy wàññi di ko jox keneen njëkkeel ci 5000 wala 1000 francs di yéeg nag gis nga boo yéenee di yéeg ah njëkkeel ci 5000 par jour waaw billaahi wal kitaabi man li may dépensé ëpp na 10 000 par jour te aw ma ko barki rasulullahi damay bañ a wax sax ca topp ma wa sharafil quran man li may dépensé par semaine sama benn kër laa wax de benn kër rek par semaine fenn nit soldu weer parce dama gëm ne sama njaboot ñoo ko moom dama gëm ne sama njaboot ñoo ko moom lu ma ciy dañ dama xam ndax danaa yeewu ñoom ñu war a pour pourquoi yàlla ko fi indi teg ko ci sama loxo jël leen leneen ñëw jeex na billaay ku ko ci mos doo ko bàyyi joxe dépense li ci yàlla charte ak li ci yàlla gàll ak li yàlla yéek wékk boroom kër gu ko xam boo ko joxee xeeb ko waaye su boo xam joxee di laaj weccet cim góor guy laaj weccet laa gën a bañ jox ma sama weccet yow weccet mooy la may ko ko may ko ko ba ngay doxaan yaa ngi doon joxe vingt mille francs attaaya war nga ak suukar te daawoo laaj weccet dëgg la wala du dëgg dix mille francs omelette nen rek xam nga ne dix mille francs ah te doo laaj weccet mu sëy si ci kër gi nga jox ko cinq mille francs dépense di ko laaj weccet yaa ñàkk ngor wala tan sawul fadla baynakum foofu laa ko yóbbu de wala tan sawul fadla baynakum yàlla ne bul fàtte démb ba nga soxlaa ndaw si te jote jotagoo ci la nga daan joxe te doo laaj wecceet yàlla ne continuer ko daan joxe mille francs crédit te duñ la ci woo foofu laay tëjee passage boobu dafa am benn xale bu ma a ñëw ci man ba tey rek am na tey laajal Mansour du ma leen bàyyi man du may tudd tur tey rek am na léegi benn xale bu jigéen bu ñëw ci man bi may waaj a génn. ma ne ko soxna si maa la jox rendez-vous mu ne waaw ma ne ko kon fàtte naa ko kon bismillah bi mu ñëwee nag be dugg ba wax laa xam ne maa ko joxoon rendez-vous dama ko fàtte ma ne ko yow it góor bu ci toppee nii ay waay waay util beneen góor moo la dig takk takku la seetil keneen mu ne ma dama koo nopp ma ne ko wax ji jeex na <laughs> ah, am na fayda de man daal ñaanal ma ci moom laa nopp ma ne ko waa ah, demal ba àjjuma ba di ñëw nga ñëw parce que nag dama yàkkamti aw ma jot <laughs> kooku am na am na honnêteté kii nag ku góor la mu ne ma shérif ma ne ko ah, mu ne ma ndaw si dama ko bëgg ba dof liggéeyal ñaanal ma ci xaw ma nu may def saa yu ma ko yónneek daf may semaine bu jot dina ma ñaan mille francs ñaar yoon wala ñetti yoon pour jënd crédit te duma ci woo mukk te su ma ko wooyee ne lu tax bu ma la yónnee crédit dooma ma ci dama la yónnee cinq mille francs crédit yow it dee ma ci woo nag nee na xuloo la koy def naan ma waaw bu dee dag may may cinq mille francs crédit boobu ma di la ci woo sama crédit di dem te yow boo ma mënatu la woo ñu yemale ko fi mu ne ma wax xam nga lii neexut tamit may crédit te kenn du la ci woo ma ne ko ndeyema liggéey di <laughs> ma ne ko ndeyema liggéey de te wax na dëgg yow am nga crédit bay mayee crédit moom na woo ñeneen yow nga woo ko ma ne ko man justice laay doxal de yow am nga crédit bay maye moom amul crédit bay ñaan yow may nga ko bàyyil mu woo ñam soxla yow mi ko soxla nga woo ko ker bu farata amee nag dootoo ko woo da ngeen di jonjoo jeex na ma ne ko yow fexeel farata am rek del mayee crédit rek tey te fexe nag farata am ma ne ko bu crédit bi dakkee nga ñàkk ko de <laughs> waaw àddina da koy xam wala nga ñàkk koo xam gis nga eh, ñu baal maax rek àddina daal nañ ko defar te bañ koo yàq moo am solo moo tax yéem jëf baaxul beneen bi nag mooy ci jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yéem sa jëf baaxul am na ñoo xam ne luñ sikkat buñ xëyee wax ko suu man bii nangamu latif laa def suu man douze mille salaatul faatihi laay def par jour ku la ko laaj dama ne ku la ko laaj mooy naw sa jëp ah, naw sa jëpp waaw man cent rakk laay naafila par jour ku la ko laaj kenn du naw jëfam ndax bari na ko naafila ñaari rakk sëlmal ñaari rakk yooyu mu sëlmal moo gën a yàlla sa junniy rakk yi moo tax nag bi ci tëj mu jeex mooy war riyaawu war ak ngistal booboo mujj ajaa sala ajëga sa ajaa jatu war riyaawu fala falaa bookar si wa riyaaw falaa taxaw ba e, e, Touré wa riyaaw falaa taxaw Oustaz Sidi wa riyaaw falaa taxaw Imaam Yuusuf wa riyaaw falaa taxaw Alaaji Baara Wan wa riyaaw falaa taxaw Maam Ngóor wa riyaaw falaa taxaw bañ nga fàtte du Ndiaye war yaa u falaa taxaw bu déwénee nag jax ma ñëw laaj la jax ja ma ci sa gannaaw ma ñëw laaj la fu ma yem nga naan ma nekkuma fi woon xàmmee naa la yow it jàll jeex na Ibrahima jàll kon wariyaa u laa taxaw wariyaa u mooy ngistal yàlla ne loo def defee ko ngistal pare naa ci soxna si ñëw na léegi ñaan ma mille francs ma ne ko yàlla xam na ne newu fi ñu ñëw ci tànt bi rek mu ne ma ay dara karaaraam ñëw naa sa biig ñëw naa sa kër démb la teraanga bi ma defal maa ngi lay sant di la gërëm ay dara karaara ma yëkkati junni jox ko yàlla ne ma yaa mën a fen junni boobu mu nga ko jox te ñaar téeméer la la ñaan démb nga bañ junni bi ngis ta la tax ah? te bari na ko rey nagu nagu dëj romb na ordonnance yu bari yu mu jënd bari na ko jënd nagu dëj maay def nag wi billaay ay ordonnance romb na ko mu lang dëgg la wala dëgg hospitalisation hôpital romb na ko fa mu faatu rek mu ne maa yor dëj bi maa yor dëj bi xam nga lum ci jublu buñ toogee ci dëj bi ne al ñu ngi sant diw moom de moo yor dëj bi yal na ko yàlla fay yàlla ne loolu nga ci am jeex na ngistal baaxul ba ci jaamu yàlla day am ngistal de bëgg rek ñu ne oustaz Camara jàkka ja la dëkk ba bu dematul jàkka ja sax day am complexe yu dem jàkka ja ngistal moo yées boobu nag yonent bi nee na képp kuy ngistal ba dem yowmal xiyam mu ne danga fa fekk sa jëf yépp yàlla dajale ko mu ne waaye day taxaw ne Sidi Maxtaar Kunta mu ne ko la labbayka yaa bi mu ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne yéen ñëpp xam ngeen Sidi Kunta ñu ne waaw mu ne moo jëf lii mu rëy lool fi man ñu ne ko waaw mu ne gis ngeen ko ñu ne gis nañ ko yàlla ne ko jeex na loolu nga ci amoon safara mooy sa kër da bëggoon nit ñi gis ko gis nañ ko jeex na yonent bi ne moo tax ngistal yées looy def na ko def ngir yàlla bu dee joxe sax loxo ndeyjoor bi bu koy joxee fexeel ba càmmoñ bi bu mu ko yëg looy defal nit bu ko dëkkandooram sax yëg sa doom sax bu ko mënee ñàkk yëg bu mu ko yëg yow ji soxna looy defal say mbokk bu ko sa boroom kër sax yëg yow borom kër looy defal sa mbokki soxna yi sax bu ko sa soxna yëg waaye ñun senegal léegi bëgg nga ne fànn rek looy def ñëpp yëg ko wala ngay baatare te nee naa leen bari na kuy baatare billaay am na ay mbokkam yoo xam ne ñu ngay dee ak xiif moo tax léeg-léeg nga gis ku baatare rek nga dégg ne mu nga prison ah, ah du jeex léeg-léeg nga gis maa gis koo xam ne soraanoo keroog bi muy fële grand théâtre keroog bi muy baatare maa xam ñetti mbokkam yoo xam ne dañuy luwe mën nañu am ñetti weer duñ fay luyaas ndax mënuñu ko mu génnee saak teg di baatare maa ko xam xam turam ma xool ko xool ba mu yàgg ma ne non Sénégal ñii dañuy fo dañuy yabaati kii diw ak diw ñoo bokk ak moom ndey ak baay ñooy magam mënuñu fay luyaas muy baatare ma di ko wax sama waa kër ñeenti fan lañ ci teg ñu yóbbu ko prison maa la ko wax ma ne leen lii mëntoon a ñàkk booy boo amutoon rek ma rus boo amuloon rek ma rus parce que am na loo xam ne yàlla du ko seetaan yàlla du ko seetaan yow say mbokk a ngi dee ak xiif ngay jël sa alal di ko pasar pasaree wa alal axir yonent bi salaay sallam nee na benn waaye ngi nii dafa génn àddina ñépp yaakaar ne mu nga àjjana ndax jëfam ju rafet ñépp yaakaar ne mu nga àjjana ndax jëfam ju rafet mu am benn saaba bu ko gënt gis ko ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti mu laaj ko ne ko yow diw lii lu la ko yóbbee te ñun ñëpp ñu ngi rafet njort ne yaa ngi àjjana lii lu xew mu ne ko dara xew lépp lu ma mës a jaamu yàlla yàlla nangu na mais waxal nit ñi ne leen nit yaakaare ne àllaaxira noonu la simple simple wu mu ne ko dara yóbbewuma ko lu sama benn jigéen gis nga jigéen bu ma bokkal benn ndey boo xam ne mosuma ñaan ma jàpp ne oomal na ndekete mu ngi dee xiif ma ñëw sama borom laaj man loo bokk ak jiw ma ne ko ñoo bokk benn butit mu ne ma ndax mosoo yëg ne xiif lay fanaanoo di ko yendoo mu ne ko ndax mosuma ko wax mu ne ko ndax mos nga koo nemmeeku ba xam ndax mu ngi xiif wala xiiful mu ne ko déedéet loolu yegguma ci woon mu ne ko toogal fii ci punition yi ba mu fekk si la baal la mu ne ko maa ngi lay jot a yóbbante yow mi ma jot a gis ne ko mu baal ma li wacc ci laahi ndax yàlla mën maa baal te kooku teyu ko xam nga dafa am ñoo xam ne duñ gis mukk nit seen soxla moom la yàlla ji junj ci alquran ne laa yasalu taxsabuhumul jaahilu agniyaa min a taafufi lu tax laa yasaluuna naasa ilhafan yàlla nee na soo leen gisee seenub sañse seenub jaagar-jaagar seenub téye seen njàmbur dangay foog ne ñu nekk ñu ngeeg lu dul jeex fekk yoruñ dara ñu ne yàlla lu tax mu ne ndax mënuñoo tàllal di ñaan ñooñu yaa leen di fekk fañ ne nga laaj leen xettali de rawati nag sa mbokk waa ji dem ci jigéenam bi ne ko yow ndax bëgg nga sa càmmiñ dem safara mu ne ko yow loo may wax nii mu ne ko wax ma rek mu ne ko sama càmmiñ kañ yaa bu ko yàlla fayee xolam mu nga ca àjjana mu ne ko mu ngi ca safara na mu ne ko lu ko fa yóbbu mu ne ko moo ma feeñu ci gënt maa ko gis mu ne yow mii mosoo ko di soxla dëgg la wala dëgg mu ne ko wallaahi dëgg la mu ne ko te yow ndekete xiif ngay fanaanoo mu ne ko am na mu ne ko looloo ko fa yóbbu mu ne ko wallaahi bu dee man rek jéggal naa ko ci xol bu sedd guy yàlla bu ko yàlla topp dara ci guddi gi mu tëddaat gëntaat waa ji ne ko demal ci diw sàngam ne ko mu xettalil ma sama jigéen boobu ndax sama alal moomatuma ko waaye moom amoon naa ci moom yaakaar bi may dund demal ne ko mu xettalil ma sama jigéen bi ndax xettali ma na xettali na ma fii ma nekk ci ba àllaaxira yàlla jékkal na ma bii maa ngi nii ci àjjana num num ma neexee maa ngi koy bànneexoo wax ko ne ko mu dimbaleel ma sama jigéen bi te kooku tey ko woon Modou Ndiaye wa yi fa nag naka ngay amee ay mbokk yoo xam ne wóor na la ne ñu ngi ci situation catastrophique doo leen xalaat doo leen nemmeeku buñ ñëwee nga di leen daw di leen tëju sa yoon newul ci ñoom ku tudd sax ne ñoom nga bokkal ngay daw ne ñoom nga bokkal rus nga toog sax ci penc ne maa ak ñoom a bokk yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yal nañu yàlla defal sutura wax ji bari na yàgg na te xëy na amul njëriñ waaye liñ ci juri jublu rek ah mooy bëgg penc mi baax rek wallaay loolu rek laa ci bëgg su penc mi baaxee kër yi baax su kër yi baaxee dëkkin wi neex man su ma sañoon ñëpp dëkk ci jàmm billaahi wal kitaabi su ma sañoon ñëpp am jàmm su ma sañoon ñëpp oomal mais lu may wàññi dara daf may yokk mais du ma wàññi parce que bu ñëpp amee nga noppalu bu ñëpp amul yàlla sédd la yow nga am am nga coono parce que yaa war a jox ñëpp. mooy li Serigne Cheikh wax ne mooy barke mu ne barke amut barke caaxaana am mu ne waaye barke amut mu ne ndax li ñuy tuddee barke alal mu ne soo ko amee dootoo noppalu wala boobu daraja mu ne boo ko amee dootoo noppalu mu ne kon barke caaxaan la waaye barke amut yal na ñu yàlla defal sutura ah ñu yemale fii kàddu yi di ñaan yàlla yàlla na ñu fi yàlla dajale déwén yàlla boo ko kenn wute ñi jógee Touba ñi jógee fu ne ndax yàlla soxna jatu yal na leen yàlla fay ñi nga xam ne bàjjanam lañ ñoo ñi nga xam ne ay mbokkam lañ nit amul lu dul mbokkam gis nga li ma wax léegi mbokk rek mooy jëriñ ëllëg balaa may dee nag ñu ne mbokk amatul njëriñ xanaa tey la ñàkk njëriñ te billaay ku sonn mujj ci say mbokk ku sonn say mbokk lay mujje boo amee teraanga nag jublu feneen waaye boo jeexalee ñibbisi rawatina ak sa ndey la ma góor ga waxoon ca Thiès ca conférence su Malick El Hadj Malick mu ne ma doom fekk may waxtaan ci diggante ndey ak doom bàyyi sax mën na rejeté doomam bañ koo gisati ba mal xiyaam ndax tooñ bu mu ko tooñ mais ndey lu mere mere mere mere doomam am nag situation yu muy toll rek mu fat ko dëgg la wala lu dëgg ma di ci wax nag benn paa bu toogoon ci sama wet ne ma ay dara xam nga lu tax ma ne ko déedéet. mu ne ma ndey joo gis saabu weñ lay fóotalee doomam du jeex mukk mu ne ma ndey joo gis saabu weñ lay fóotalee doomam du jeex mukk nu doomam mel bëgg na waaw ki mel noonu ci yow war a ko ormal muy sa ndey yal nañu yàlla defal sutura nañ fonk mbokk gi jatu amul lu dul yéen waaye yéen it leen lu dul jatu jatu na ku neex a dëkkal la ndax téye na njàmburam laa na biir yaatu na xol loolu moom mën naa ko ko seddeel ndax daf ko jëflanteeg man ay doomam wax ma ko daf ko jëflanteeg man ay doomam wax ma ko moo tax kum jur boo góorgóorloo tuuti dem waaw wallaay fal mu ne yaay la joo xam ne royuwaay la mook soxna si toog di seen tànt baax lool lii de tey laa ko door a xam sax man mu ne si weeram deewaan doomam yi ñooy njëkk a génn waaye dafa mel ni yaayam la ay doomam njëkk a génn soxna sii daf daan wax ni yaayam daf ko bëggoon ba di ko wooyee tamaate aragoni ndax rafet moo ko wàccee tuddee ko kii Pape wax na ma ko bu yàgg ca Belgique tey laa koy door a gis moom mi kon nag mu ne mu doon nit koo xam ni lu jafe la doomu ba ak pour dëgg dama doon dëggal rek li nga wax kon nag yéen bu leen yàlla séddee ay doomu baay nga toog nii toog nii mu sës nii nga sës nii ngay wax muy dégg yàlla na ko yàlla saxal yàlla bu ma leen ci catu yàlla bu ma seen cat topp mu ne ñoom ñëpp ñëpp a ñëw mu ne waaye li ko gën a neex nag mooy jëmm ji nga xam ne moo sabab lii yëpp muy jatu ba moom nga xam ne mooy kii kii mooy moom mu ne yàlla dogal na boo ko xoolee mu ne tuubaa ba muy bi may wax naan góor guy joxe dépense mu ne daf ma bëggoon laaj ndax jigéen juy doxe dépense yor ak njabootam ñoo yem benn la benn la amul benn différence déedéet jigéen buy joxe dépense yore ko ay njabootam ndax amatul góor gu ko ko jox moo góor gu koy joxee yem même boo ko amee te di ko jox sa bopp yàlla fay la ko ci sa njaboot mu ne kii yee ko ko liggéeyal mu ne moo ko tereetee dem Touba ndax ndeyam Touba la soqi ko ma ba Jaxu Bala nekkit setu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul diina mu ne ndax borom diiwaan la mu ne diiwaan si la mooy nijaayu maam Cheikh Ibrahima Fall mu ne Babacar Ndiaye maam Seynabou Ndiaye Babacar njaay maam Seynabou Ndiaye bokk ndey ak baay mu ne Babacar njaay jur Faati njaay mi jur maamum maam Seynabu Ndiaye jur maam Cheikh Ibra moo waral diiwaan Silla xam sa askan baax na de ah. mu doon koo xam ni yàlla dogal na yàlla yo dogal moom mii mu ne ko coppet yóbbu ko Touba muy topp Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makaarimal Axlaa may ma foofu pause tuuti pour nga xam ne xam naa ko bi muy door a dëkk PA yi yor oto bu vert ba te tubaab bala newoon ci usine bay defar saako ca Rufisque mayoon ko ko daglu li may wax de kër fam njëkk a dëkk laa wax fi mu njëkk a dëkk ci étage ba ci PA yi maa ko fa njëkk a fekk maag Sidi Maxtar Kunta ak sëñ Souleymane Seck jour boobu lañ ko indil oto boobu aca wéyal mawdon yubahatu manatahu min def leen nii bi aynan unir mawdon yumaa دني فيا عجبا للنور وكحولا وسرورا ومودني عتى يوم الوحادة في أمي موضنا كما حل الملائك لفلني وللإيوان شرفا موضنا شهير والمذلة موضنا نكسات مودن ذو الأوساد نفلني لما في جوفها مودن يدرب كل مودن مجاوب ساء مودن يميلكم تم تم نفلني فمتخر مودن مودني وعام ثم ثم ثم